naka Hi again guys, we are going to Gambia. Salula, <coughs> here we come. so ma ngi nii ma indiwaat leen another vlog waaye xaar leen foog leen ma dugg si affaire bi maa ngi bugg a ñor mais nag ma dugg after ma indiwaat la ma ñëwaat dem nag check in Gambia experience allah allah ku na sedul rek da nga xamul lu yow ya. la ilaha illa ñun defo na ñu ñoo fi de ñun ñaar ndike wu fi de way hello hi okay Zena I'm gonna mo mun a puus na check in nañ ba pare ñu ngi di dem security cannot wait, we we we we for now. You get them to Gate Bifandla. Yep. suma gaay mene ko nuyu ma len sax nuyu bu baax way mu ngi ni mene ko everything is intact ah so ñu ngi nii di dem ci suñ ah gate bi mene ko ne comme naka leen naka la leen ko gëna waxe mo mo leen présent mu ñu ngi dem Gambia te nak kan. dama ya. dem surprise suma yaay waxuma ko dama ngi ñu ma xalé yeah dama taale so dama leen bëgg a ci ka defé ba fofu non nak inshallah rabbi ñu wal leen réaction am dama ko wax ne suma benn anti suma benn anti mooy ñëw te kooku la moo expect moom moom anti laa expect waaye na beetu lii laa def mère bi yow ma bon <laughs> ba xam nga surprise surprise moo dee daaxa moo dee ne soo leen waxee ne yaa ngi ñëw dañ dee am waaye soo leen surprise moo daaxa so mu góor léegi xaaral ñu ñëw seen nag man géej lañ nekk gis ngeen nag ñu ngi nii di dem ndey ante tamit ak famille macha allah ñu ngi dem yeah Gambia dina humba dina dagan dina neex ah Aja <laughs> come on let's go Aja Zainab yes the whole crew is going waa na am ñu demee ni am ñu demee ni xoola fu mu nekk nu mu laa xoolee mu ngi laa xool xool yoo xam ne parce que Aisha Aisha mama yap anoda musa léegi na ñu ngi nii nag di dem suñu géej si ara ngeen dañu Thank you. ñu nih boot fly bi ñu ngee boot lii maanaam nga di over Baby Aisha. Volvo, Volvo. Hello, Aisha. Please do not attempt to retrieve the item yourself. Smoking is not allowed on board the aircraft at any time, and this includes the use of e-cigarettes. Finally, if you need any help finding your seat or placing your hand baggage in the overhead locker, please contact a member of the cabin crew and we'll be happy to assist. Thank you. Thank you. non ndeyante ne ba neexoon na pere nga pere nga tàngaay bi lii da nga sore sedda ji non yaa ngi naay nii daal nga wàccee Siete compras. Mamá. ¿Qué no no sé, no not yet léegi nag ñu bàyyi leen fi nekk flight bi dem axtan ñu gisaat leen allah nga ñoo parce que six hours la ñu tida. tëdda relax parce que teel nañoo eewu ñu ngi jógee kër 3 am pour dem airport gi check-in was um, five Di boobu ya noonu ba léegi yaa gën a xam rek sooy tukki doo mën a nelaw ñoo tëddal ni fii nii nag def nelaw bu neex ba àgg Gambie incha allah rabbi ma wan leen surprise ma war surprise guys. say. Go sing for the captain. Hello. Yay, we are here. Hello. Ah, hello. Come have a seat. Come have a seat. Where is Aisha? Are you going to drive the, the, the plane? Ooh, Aisha, come. Wow, look at them. You never... Hey, eh, eh, hey, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, Aisha, It's okay. <laughs> Aisha, turn around. Aisha, look. Ooh. go. Thank you. Okay. Bye, Bye. Bye. Aisha, enter. Aisha, another one. Aisha, Zainab, come. Let's go. Excellent. Imagine. We're already in Gambia. <laughs> Acha gaaw Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. thank you so much <laughs> thank you thank you Ooh, thank you Jadi ngen jëf waay yeah so VIP la ini nak? ah <laughs> way ànd ak njaboot bagas. bagage. Zeyna ba ca ñëw de. waaw mu ngi nii. yow. xoolal mu Ayo, ayo aywa ànd ànd tamit mu laaj jël jël bu fii ñaata la. waaw fii moom neex na moom. waaw léegi nañu ngi nii nag di fay si nag suñ doola si suñ doola si waaw mun nga koo fay in dala si <laughs> mun nga koo fay in dala si soo ñëwee mun nga la ñoo jox doola bi ñu ceeñal la ko in te dala si nga fay in dala si wala nga fay in paa wala nga fay in doola. waa gis nga nga ne ñun ngaa surprise amuloo ni ñoo la gën a gaaw. amul xale yi amul xale yi. Zeyna. ana Betty. ku nga fàtte ne fii laay liggéey. Ah, xool le man ñii ñii laa dem surprise soo yaay bi de machine rek ñoom xam nga xale bii nii airport laa liggéey bu loo di bi suma xale suma suma collègue bi léegi nag kool na ba lijjanti ma ki bon. kan ma ku la moo raw tam. so léegi ñu ngi nii nag egg si nañ léegi nag ñu ngi nii nag di dem man suma raka bi dama ko waxoon ne ko nekkite ñoom xam nga suma suma bi oh. airport laa liggéey so xam naa nga dañ ma xala suspect nag. mukol uh, panaga sen na liggéey kaay en quoi suma suma code bi fi jee waaye gars yi ne ko suma yaay nañ dem di seet xale yi man ma ne woo maa si nekkay dafa ñoo surprise léegi te ñoom waaye gars yi nañ dem situation bi ma gaañ yi ah ma ne ko naka ngeen déglu ñëpp nuyu naa leen waa ci biir Gambia macha allah macha allah soo gis ngeen last time ma waxee woon yéen mooy bi mu doon ñëw so after ma am soj bi mu gëtal ma torop trop trop after few days ma ne xaaral ma noppale ko relax calm ma bopp down so. tey moo nekk uh, Sunday ñu mel ne xaaral ma dem si guddi bi ñu xam ak xale yi dem rek amee nice change change environment tuuti yee soo nit ñi dem si bit bi yee yee ñu dem tamit ñu àndaa yéen si bit bi am na tamit le trade fair bu am boori Costa Road somewhere su ko defee tamit ñu dem wala trade fair bi yee <laughs> you found Mac? léegi fu mu Mac ñëw nañ nag Mac ngi nii si bij bi o da kaa leen Moussa Bachir ah ah hmm? a jafet Zizi ah ah ah Zizi ah ah jaa jaa jaa jaa jaa just here sekarang orang mungkin sekarang just here baca kamu mooy parce que bul dem taxaw leen na seen tànkay tooy fii nii na seen tànkay tooy rek ak ndox bi aca demal beti aca ana Zeynab go moom ragal mooy ñaay fii nga taxaw rek go stand here yeah Dah pasal ni. Bag. Mereka main gini. Back ni, nyang balo. nhang balo. YouTube lah dek. <laughs> maraka la moo topp si man <laughs> xam nga man maa ko daaxa wax leen rek seet leen rek seet ko ba ma daaxa <laughs> man dama di sa morom <coughs> moo tax man soj bi <coughs> ba léegi ma bàyyiwul <coughs> acca léegi fan a fan ngeen dee dem

It's fun. uh Ow! What happened? The, the horse is tugged back into my leg. Liam, sig bit bila eh? <laughs> här. hasbi hasbi bungko <laughs> bungko durge nambi Muhammad pasti kaya ni musa Hello. niet wanneer ik ze yëkkati sa yaay sa loxo sa kaw suy ñene wan lan seetal mi ngi nii one five la foog naa